ndaw ndaw ndaw ndawul imaam ndaw lañu. fi mu nekk nii. am na d'ailleurs sax kenn koo xam ne mu ngi ci ligne bi bokkoon na ci ndawam di wuyoo oustaz Gassama ba Thiès. Mhm. moom moo nekk ci ligne bi. xaar ñu jël ko ba xam waaw mhm. dugal ko asalaamaaleykum. maaleykum salaam nuyu naa la di la ziar. ñu ngi lay décidé ci biir plateau bi rendre hommage nga xamante ne moo di imaam Alioune Badara ndaw ñu ne woon nañu teewlu say kàddu jëmale ci jëmm jooje. mi ngi en direct macha allah soxna si ginnaaw bi ñu nuyoo nuyu kala Dor nuyu mbolam ñuy diglu yewelo di nuyu babakar Touré di wax ni yag nañ top euh di def ay témoignage rek ci imam dembu bima ma émission bi dama lol lool parce que dama yag wax ni eh, jot na tay télévision yi ak rojo yi ñu demaat ke gëstuwaat mhm. mhm. mhm. eh, kan mooy imam ndaw rawatina nak ñim fi bayyi kala lor mu ngi doon junj dembu man ma ngi tab ci ay loxom 97 à l'âge de 13 ans euh ba 2000 laa ñibbisi sama wajur yalla nako yalla yàlla yërëm mu ngi tudd tafsir Moussa Gassama yaghfir lu naa Cheikh Omar Diagne dina ko xam mu ngi genn aduna ci 4 mois rek lay toll bim ñi fay yobbu Euh, dafa leetar rek la bind jox ñu ko man ak sama mag ak sama rak euh, ñu nekk fa ba niñ fa jógee mais li ma gën a marqué ci imam hmm. li ñu jàngal du alxuraan di kese mais jub gi mu def ci ñun hmm. ak dëggu gi ak maandu gi hmm. soxna si ñun daara ji amul woon fay daara yalwaan la yalwaan xale ku nekk xam na ni soo ko sasul lu lu ko neex lay indi li ci des mu sànk ko fukk ak juróom lañ doon yóbbu juróomi bekk suukar kaasub ceeb lu ci topp yaa ko moom suñu hmm. saraxee xar ko moom suñu saraxee ginaar yaa ko moom suñu saraxee cinq mille yow yaa hmm. man mii di wax ak yow imaam mos nañ maa sarax ginaar pour wan la rek ak njubam ak ni mu bàyyee woon diggante mu boroomam subhaanahu wa taala ak loo hmm. nekk nekk xale sa àqu ci jël dara euh, biñ ma saraxee ginaar bi may ñëwee daf muñ ma ñaata ngay jaay ginaar gi ñuy waxaale man du ma ko fàtte mu quatre-vingt-dix-huit li may wax nii maa ngi ko ko ñetti téeméer ak juróom fukk mm-hmm. ginaar gi koroog bi ko soxna yi toggee tibbal na ma ci xar yi nekkoon ci biir daara ji ñun ñoo ko doon sàmm man ma fàttaliku talaata maa yore woon wàllu sàmm bi mais ñun ak ak njabootam ñoo ci bokkoon yam dañ ko doon séddoo semaine bu nekk groupe bi ñoom ñoom moom xar yi maanaam yéenee rat beneen semaine bi groupe bële ko mosaan rey ñun ak njaboot gi ñoo ciy bokk ñoo ciy bokk yam mm-hmm. imaam ndaw benn yoon la mos a la ma mos a dóor man li ko waral mooy damaa yëg damaa jël xeer di ko sànni xar yi imaam day bañ nga nekk ak nit di yëkkati sa tànk day bañ nga jël xeer di ko sànni jur day bañ ngay wax ak nit di yëkkati sa loxo. moo tax biñ ko tuumaalee. Mm-hmm. ànd ak ni rajo yi def nañ ci liggéey bu rëy rëy ci jabalisation bi. Mm-hmm. mais man de ànd ak ni may nekk nekk xale damaa taxaw waat ni lii du dëgg. ndax xam naa ko xam moo xamante ni sama waajur bi ma jur sa xamee ko doon parce que sama waajur li ma nekk moom bëriwul damay génn rek di jàngi. Mm-hmm. ma xam kan mooy imaam koo xamante ni lu mu gis nga yor ko muy luy gaañe da koy nangu néegam am na benn kii bu fa defoon da koy jël daal di dugal foofu ba pare mbir mu yéeme feeñaat ci moom mooy imaam sens bi mu am man li ma jaar ci ñi ma jàngal euh, yaakaar naa néew na maam euh, weesuwul mën na mën na ñaar ci ñi ma jaar ci seen loxo jàng mais ku ci mel ni imaam man gisuma ko mm-hmm. euh, maanaam ñi ñi mu jàngal fi ñu toll nii may wax yow kees gii ma nekk rek mën naa fee lim ay daara yoo xamante ne ci daaraam lañ jógee. Mm-hmm. maanaam ñoom ñëpp dañoo pare rek dem jàngale ji te ñu fii ëpp nit ñi dañuy jógee ci daara yi dem ñii dem commerce ñii dem nangam te ko loolu dara nekku ci. Mm-hmm. mais imaam chance bi ko yàlla may mooy ku génn ci daaraam rek da ngay dem samp daara. Mm-hmm. mokkalal ay nangami nangami nit fii ma nekk fii ci kees sama mag mu ngi fi ñoo demoon woon ca daara ja mu ngi yor daara ju mag fii internat bu mag. Mhm. sama rakk mu ngi fële côté saaw ñoo fa nekkandoo woon man mii di wax ak yow daara laa yor am mhm. naa fi sama beneen mag bu ñuy wax Moustapha Kayre daara yor ku ñuy wax Ablaye Thiaw daara ñoom ñëpp ñoo fa nekkandoo woon te ñëpp ci loxo imaam lañ jógee mhm. Ah, kon imaam man jàpp naa ni benn émission ñaari émission mënul doy ci moom man dama musa ñaan yàlla fan laay li ma dencal fan laay toog ba wax ko daan daañu ko yaatal bu baax incha allah Sénégal Sénégal Sénégal euh, maanaam ñàkk nañu rëy maam duñ xam imaam xamuñu ko ba niñ demee koroog bi mu génnee ñu dem seeti ko biñ ñëwee toog mu ne ñu fii ngeen toog day la ministre bi toog ak euh, kii euh, président bi yabaloon mhm. yoon ñëw di jéggulu ñu ne ko imaam lan nga leen wax mu ñuy def la yonent bi sallallahu waxoon waa maag izhabu fa antumu dem dem leen jéggal naa ñëpp mhm. kene door moo koy wax léegi imaam gisin mi ngi woon ci wàllu jihaad man doon Sénégal soo ñuy wax jihaad rek nit ñi dañuy rée dañuy dañuy tiit bala boog su ñee islam sax laay wax mm. ñu ni waaw mm. mooy dagg ay loxo ku sàcc mm. ndew soo ko njaaloo ñu dóor la déedéet dafa wax ci biir tribunal bi ñu ngay àtte mu ñu leen yéen yéen yéen euh, avocat yi lii ngeen di def nii soo leen ci dëggalee seen a sàmmante seen diggante seen borom di ngeen def jihaad la jihaad mooy góorgóorlu ci yoonu yàlla mm-hmm. waaw ci yoonu borom subhanahu wa li ngay def lépp looy def rek xool mm-hmm. sa diggante borom loolu jihaad la soo ci mm-hmm. dee martyr lañ lay tudde moom jàpp nañ jihaad mooy gàddu jaasi dem xeexi déedéet yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bëri na ñu dugal ci lislaam te gàdduwul jaasi xeex mm-hmm. lislaam lan lay xeexe ak kan lay xeexal lislaam du tëb tëb rek xeexa yow ne la gaa fi diin la yàlla wax mm-hmm. bu leen forcer kenn ci diine ji parce que diine mbirum mbirum pas-pas la mbirum ngëm-ngëm la te ngëm-ngëm kenn ci forcer kenn mm-hmm. mais sa jikko ju rafet ci say li ngay jëflanteeg nit ñi ci nit gise ñee la ba xam ni ah kii kat lim moom lu war a mën a dugg la nga ñëw dugg ci imaam loolu la doon jàngale mais malheureusement Sénégal xamuñu ko diabolisation bi bëri na moom kat gëmul sëriñ moom kat bokkul fii nangam ak nangam te subhanallah imaam ñëpp la doon jëflaa ba ñu jullit sax mm-hmm. soo demee tey daara am na fa teen bu fa nekk moo xam ne ña ko fa tabax ña ko fa gas duñu ay jullit la preuve fa mu nekk ne xam ne booba suñu diggante Kaolack sori na lool foofu la ñu doon di di yalwaa mm-hmm. bayaal ba fa nekkoon xam ne tëbës gi fa lañ daan toog di lakk yàpp soo demee école france moo fa nekk Clédor damay wax xam na ko bu baax. fa lañ mm-hmm. bi mu génne àdduna fa lañ ko julli. Mm-hmm. état bi mu ñëwee soxla fu mu jàngale amu ko fa fekk booba école arabe la ko defoon ñu ni ko dañ koy luyee mun leen déedéet man duma luyee sama sama sama sama sama njiitum réew daa jël place bi may leen ko mm-hmm. gor la ñenn ci ndongo yi ànduñu ci woon muy ak yeneen ak yeneen euh, euh, programme développement Kaolack bii xam ni man nañ ñi sax ASP yi tey jii di liggéey réew mi ci ñoom ci moom lañ ko jëlee ci terminal bi biñ ñee ko da ngaa waroo laaj droit d'auteur leen déedéet man sama réew du ma leen fayiku dara daal di reetaan imaam nekk koo xamante ni toog ak moom rek jàngal la yeneen saa dafa wax ni toog ak ku baax mu ngi mel ni toog ak jaaykatu parfum toog ak nit ku bon mu ngi mel ni toog ak ab tëgg doon dëgg nag tëgg bonul mais lay jóge ca moom la muy upp hmm. dina la xeeñal saxaar dina lakk sa yére mais jaaykatu parfum su la mayee nga xeeñu su la su la su soo jëndee xeeñu su la mayul jëndoo mënta téye ak xetam hmm. imaam noonu la meloon. te gis naa ci yàlla ne ñi mu yar jàngal leen ma xam leen ëpp nañ juróomi téeméeri nit koo ci toogal rek di nga xam ne kii jaar na loxo imaam. Mm. Mhm. yar la lay woon gëm loolu sa bopp te avant tout sa digganteeg sa borom avant tout sa digganteeg nit ñi ak nit ku lu man di doon fu mu man di bokk. Mhm. xamal ni nit la yàlla moom moo ko bind. moom loolu la doon xeex li mu doon xeex mooy doomu aadama ci boppam nan ngay fexe ba àdduna bii nga nekk nga nekk fi nekkin woo xamante ni kenn du la du la yijji kenn du la betti. Mhm. après nag mbirum jullit doog a ñëw a nan ngay taxawee sa wàllum diine. Mhm. moo tax moom fépp la daan dem Kaolack euh, euh, kii euh, murid bi nekk foofu su fa gàmm Moussa ja moo daan def waxtaan wi. Mhm. ni am na ñu muy benn fii laa bokk wala naa lool du am. kon moom Sénégal dafa dafa nekkoon kuy boole kuy ràpp koo xamante ni dafa bëggoon nit ñëpp ñu nekk ci benn waaye nag sunum réew. bokk ci réew yi nga xamante ni dañ koy ndamoo fu mu mën di toll. te mhm. projet bi loolu la xeex ba ni mu tëddee. Mhm. alors mu doon mu doon mu doon xeex benn projet mën nañ ne sax boobu tey moo toog ci euh, bopp réew mi yéen ñi nga xamante ne seen xam dafa màcc jëm ci mbiru diine ak lislaam lan ngeen di xaar ci euh, gouvernement bu bees bi. waaw li ñuy xaar de mooy li tax tax ñu dugg ci man mii di wax ak yow. Mhm. musuma wote mais imaam tax na ma dem wote yow ma ci wote mais campagne bi ma musul def daara ji dama koo dénkaale dem campagne yi woon. est-ce que loolu am na solo de. dama koy déggal ko yow yow ma ci. yow ma ci. yow ba bokk sax ci ci ci parti politique boo xamante ni musuma jàpp ni ma parce que man li ma jàppoon mooy képp eh, koo xamante ni àtte woo l'islam moom. wax mm. dëgg yàlla dem di ànd ak yow. mais imaam def nañ suñu xel yi yoo xamante ni subhanallah. amuñu eh, amuñu fayam. léegi li ñuy xaar ci ñii mooy waay nañ fexe ba buñ rusloo imaam. Mm-hmm. surtout. parce que lii mën naa ne projet am lañ àggale mébétam lañ àggale. ñaanaloon na leen ko de ba biir palais ñaanaloon leen ko da ko dénkaane. démb rek maa ngi seetaan vidéo bi mu ni incha allah projet bi dina dem ba biir palais. Mm-hmm. ak institution yi si seen seen loxo. Ah, waaw kon comme que yàlla dogal na ñëw na ci seen loxo. Mm-hmm. rawatina rawatina nit daara yi. ñu ngi dund souffrance boo xamante ni kenn mënu koo wax ci kaw. te beneen bi may euh, may interpellé Clédor. waaw. su fi jógee ma koy ñaan ngir yàlla na def le tout pour xool ñi nga xamante ni tey ñoo nekkoon donga imaam ndaw gaa yi bàyyiwuñ leen woon de hmm. Hmm. ñu ngi doon dund lu métti li imaam doon dund ñu doon dund lu ko raw hmm. ci équipe téléphonique diglu say téléphone ci topp gi ñuy topp bàyyiwuñ ñu woon bàyyiwuñ ñu woon tawan newoon na alhamdulillah gis nga ki ñu yar bay bàyyi ko ngay xool ci moom sofaan da ngay rek say bët mooy wànnente mais doo mos a gis dara imam nag gën nañu bëgg do suñu réew gën nañu xam loolu parce que ñun dañu démon ba nit ñi gëm ñu daal ku jang na nga yam ci minbar bi mhm. na nga yam ci daara ji paré nga mais imam néna nañu nekk du nonu ndaysan da ngay wacc ci téré bi won nit ñi parce que kuy laqatu do wax ni maangi ni mhm. wala nit ñi ci société bi la bokku te Sénégal fi dara mënu fi jàkk lu l'islam da ci and mhm. parce que 1001 un la fi l'islam dugg 1960 euh, euh, indépendance 1001 ba 1960 l'islam ba tey ñu bëgg di ko écarter di ko écarter Sénégal mënta dem te l'islam du ci ànd te jàngaleem l'islam mag ñu baax ñi ñu am liñ fi jàngale bàyyi ko fi suñ ko booleeg li ñu yor Sénégal day dem ca kanam raw raw réew yëpp ma sax réew yi ndaw yi Afrique waaye réew yëpp leen di raw mm-hmm. kon nag loolu man ci laay woo mboolem sëriñ daara yi ñu xamaa ni lañ ñu wax naa naan imaam dafa war a yem ca jàkka ja ca minbar ba ca daara ja loolu du dëgg mm-hmm. ñun li ñuy defar réew ci gën a tuuti kuy defar nit mm-hmm. ndax nit mooy mooy réew di taxaw ci jaaka di khutba di jàngal alquran di defar ay nit koku nga taxaw ni ko yow fofu rek nga wara yam ta koku wara berem jite ji rewum war nañ imaam bi war ci faru ñoo tollu fo xamanteni soxna ci mhm. imam dafa wara wacc ci minbar bi dafa wara dafa wara jite ensemble ba pare jóge ensemble dem jite ji juma merci féeg ñu fofu rek rew mi liñ bëgg duñ ko am ta inshallah allah combat bobu lañuy mané ñu lay jaajëfal ba rek ñuy fekk ji imam inshallah taala amna solo bu baaxa baax ñu lay jaajëfal ma koy ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di sant Clédor bu baax di ko mm-hmm. gërëm di wax ni ñu leen di ñaan bu leen yemale fooy émission yi. duñ ko fa yemale maa ngi lay bàyyi Clédor am na lu mu war a sànni ci kàddu. incha Seydil Imam mm-hmm. euh, ñu ngi lay remercier di rafetlu kàddu yi. Euh, mbir nag euh, boo koy def dangay dem par étape. Mm-hmm. parce que alxuraan moo ne. képp ku àtte alxuraan maanaam charia. naafiq nga. benen bi mu ni euh, kii nga nu mu tuddati euh, gé génn nga diine daal naa nga waaw mhm. donc léegi euh, ñun xam nga projet bi nga xam ne mhm. bokk na ci ñi ci amoon pas-pas mhm. imam Alioune Badara Ndao moo doon xeex système bi nga xam ne moo ŋànk institution financière yi muy FMI banque mondiale ak yooyu yëpp ay ñoom ah. Bill Gates ak yooyu loolu weesuwul système maçonnique mm. des francs-maçons mm-hmm. ah. ñooñu ñoo am ay ndaw nouvelle ordre mondial yi mm. mooy nouvelle ordre mondial boobu nga xam ne imaam mm-hmm. daf ci defoon benn jàngat bu xóota xóota xóota xóot boo xam ne bugguma ko woon partager lu dul ku mel ni Cheikh Omar Diagne dafa toog ci plateau bi ndax mu riche ndax ñu xam profondeur pensée boobu mais dañ koy def beneen jotaay mais ca ba ñuy jóg ci euh, ànd sàmm jikko yi mm-hmm. bokkoon na ci li ñu dérangé woon muy baatu laïcité bi nekkoon ci constitution bi. absolument té mu amone interprétation yu yu yu yu wuute. té mhm. imam aline Badara Ndao am ci déggin bu lèr bu lèr am donc assemblée ba won mhm. euh ba ñu yóbboo fofu projet de loi bi. Mhm. nanguwuñ ko sax examiner. ñu delloo ñu ko. ba muy ñaar yoon. légui nak ñom metti tali ñen di tek ci daara yi. man xamna ko parce que man ma ngi jokkoo ak njaboot gi. jërëjëf ñoom bu ñuy julli juma. am na benn waay joo xam ne day sol tubéy bu gàtt gën leen gàtt tubéy ni ñoom pour nuroog nuroog ñoom. te moom information la fiy wut. yooyu yëpp ñun dañ waaw yooyu yëpp dañ koy xam. RG RG te ah, ñoom xamee nañ ko de. nee na dëgg la. Mhm. Euh, gis nga li ngay wax nii. waaw. wàllu euh, laïcité bi. Mhm. Euh, conférence bi mu fi def bi nga xam ni moo gën a siiw mu ngi ko defee fii kees. Mhm. bu ñuy wax quartier quartier Ngent. ngent waaw man bi may ne ci daara ji maa ngi gën a nekk xam booba ñun arxuwaan lañu doon jàng mais suñu mag yi nga xam jàng xam-xam mhm. constitution Sénégal mhm. imaam da koo def en arabe mhm. article par article di leen ko jàngal ci biir ci biir daara ji kon kooku moom teel naa ba bàyyiloo xel gars yi da leen doon wax toujours yi da ngeen a war a dem nekk ensemble di wax ñuy dégg wallaay beneen bi mooy pour wax la lii ngay wax dëgg la li ngay wax nii ci coono yi ñuy dund noonu bi mu génnee dañuy dajale suñuy jéema ak suñuy daqaar ba dajale luy tolloog presque cent millions pour tabax daara ji. Hmm. man daara ji ba ma fay jógee quatre deux mille deux mille euh, deux mille. Hmm. ba ma fa bàyyi woon man doon fa fanaan moo nekk néeg imaam tey amul sax tapi basaa la fa lal. Hmm. am na ñu ko seede. teg teg man laam ci suuf man ngay man man fa man la fa doon fanaan. amul lu fa changé lu dul jàkka fa fi jumaa ja fa fekkaat ñu tabax ko fa amul leneen lu fa changé la ma fa fekk bàyyi woon deux mille lépp maa fa. gis nga biñ tambalé liggéey bobu lañ ñew arrêté ko ba fi may wax ak yow ni hmm. tabax bir tabaxatuñ ko fa hmm ba tay ji nangulu ñu tabax dara ja hmm loolu teguñu ko fenn hmm. loolu nag danañ ko tabax ñu ciy xaar man hmm. ko ñu ngi ci xaar ñun ñoo ñi nga xamanteni ñoy ñooy ñoo ñoo génne fast euh, def nañ ben mouvement tudde ko ñi nga xamanteni ñom ñoy ñooy ci daara imam ndaw diko ko disé chaque weer pour gëna jappalé jàppale daara ja parce que ñafa nek wax deug yalla ay jàmmal mais ay xalé lañ Moustapha mm-hmm. moom mooy taaw tam man mii di wax yow man maa ko mag samay trente six ans matagul mm-hmm. kon kooku xale la mm-hmm. ñu war a jàppale lañ parce que du dara liggéey lañ liggéey lañ leen Sénégal rawatina nag liggéey lañ leen lislaam

lu ñu déranger la ñu doon combattre la parce que commencé woon nañu euh, euh, éducation sexuelle ci xale yi am ay huit ans ba ba douze ans xam nga euh, bëgg a dugal affaire genre ay yu nekk yoo xam ni moom dafa gisoon muy ñëw muy ñëw domination bi nga xam occidentaux mom moom lañ ñu dominer te ñu bëgg a dog buumu jaam yooyu maanaam souveraineté boobu ñu ñu ñu xëccu jëmee moom da ko gisoon dafa gisoon ni tubaab faut comprendre génération bu bi dañ comprendre les jeunes là yi raw de. xalé yewu nak yewu raw ñoo ma am mhm. donc xalé yi comprendre ñun dañu jëm souveraineté. Mhm. donc lolu lañu bok ak imam ali Badara motax je crois que. Mhm. bàyyeeguñu dinañu continuer di ci Cheikh Omar Diagne ak euh, Abdou Karim Gueye. d'ailleurs waroon na fi ñëw sax ñu ñëw teew. Mhm. Euh, ñu gën a xuus. Mhm. ci waxtaan ci jàngalay. imaam Alioune Badara Ndao dafa am lu mu fi bàyyi mhm. dañ ko def balaa koor gi di jeex. ko def ci biir koor gi la te comme ñu ngi ci biir koor loolu naa xar sama tànk tubéy ba ñu am plateau boobu. dëgg la pour nit ñi xam dëgg dëgg dëgg dëgg. kan mooy enseignement Alioune Badara Ndao imaam Alioune Badara fi bàyyi. donc kii seede na ni. Euh, xam nga lu tax ñu ni euh, kiy jàngal alxo ki kiy jàng alxuraan di ko jàngale. Mhm. mu am tuyaaba boo xam ni. du du du du dakk mukk. du dakk mhm. mukk. Mhm. Euh, du fay parce que mu ngi nii tey. ñii mu formé kii di wax ak yow nii ndaw la. dafa defar ay nit du mag. te mu ngi yor daaraam. di defar ay xale donc day am benn exponentialité ci ci ci ci njàngale boobu nga xam dafay atteindre ñu bëree bëree bëri bëri maanaam lu lu. luy luy tourner la luy fonctionner la. te te te te te du fay. kon lolu il faut que nit ñi xam ko jël ko en compte. Mm-hmm. té ñom dañu am engagement citoyen. Mm-hmm. parce que xamal na la ni ñom seen liguey du du yam rek ci daara ji. ci daara ji parce que imam parfois dafa war a wàcc minbar bi même imam buy khutba sax. Mm-hmm. actualité la wara khutba ci actualité la wara wax. parce que wa nee à la lumière mhm. euh, euh, du Coran et de la Sunna. Mhm. donc nee na nee na ki ñi di défar euh, nit mar nañoo mëna défar defar réew aussi. mais donc am nañ place fële ci assemblée mais lolo lèr parce que xam nga assemblée euh euh man de am na benn -hmm. ma dem ci ben kilifa diini ma yeen jamono Abdou Diouf la woon lan moo tax ngeen di nangu jahili yi di leen dogalal. Mhm. te politique li ciy joxe ndombo tànk mbooloo kese la mu hmm. ne ko te yéen jaar ci santam damay bañ a particulariser sant kilifa diine la kenn ëpp leen mbooloo lu tax mënu leen jël seen wàll ci fi ñuy dogale négam mbooloo moo koy joxe parce que am na ay ay kilifa diine yoo xam ne ñoo ëpp mbooloo politiciens yu bëri mais seen mbooloo dañ ko yemale ci diine gi mais bu fekkee ni politiciens yi dañ leen di di fi ay ay jeux de hasard di fi dugal ay affaire di fi promouvoir ay affaire góor jigéen di fi freiner ay liberté di ay yow au moins euh, am na ay député yoo xam ne bu ma leen tooñ bëgg a seen tur am ay député yoo xam ne euh, am leen fa assemblée am ay nitu valeur moo leen gën. mooy ñi di nelaw. waaw waaw di nelaw man daal bëgguma su ma waxee rek day leer moo tax bëgguma tooñ xam man ah, ci ñoom nag damay moytu tooñ tudduñu kenn nakkile door tudduñu kenn xam nga donc donc euh, euh, ay nit de valeur moo ñu ëppal njëriñ assemblée que yenn caaxaankat yi vraiment nekk assemblée nationale donc nit ñi fii dañu dem ba ragal dëgg Sénégal ñemewuñu dëgg ñemewuñu njub moo tax ñu ragal diine Cheikh Omar Diagne fa dëggu arrestation bi diine gi mu def ci qu'est ce qu'est ce qu'est ce tax parce que arrestation bu mujj bi liñ ko reproché man waxna lu ko raw ci même conférence de presse pour xamni man mom ak dàmbooj la woon mhm. dàmbooj wax lu ni mel man mo wax lu ko raw mom ñu seppi ko yobbu Abdou Karim gay parce que ñoo bokk gëm-gëm pas-pas gis-gis bobu nak gëm-gëm ak pas-pas yëpp gis-gis bobu nak mhm. lañuy bañ mu law mhm. mais imam bi expliqué xam ngeen ni mu ngi law mu ngi law ci suuf te ñoom investir nañu euh, exercer nañu seen citoyenneté ci élection yi voté nañu parce que imam lii la bëggoon parce que lii moo gën li fi mas a nekk yépp ci côté valeur ci côté diine nguur gi moo gën a jege diine mm-hmm. nguur yi fi jàll yépp te loolu dafay feeñ ci seen i njiit ci Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dëgg la mën nañu am ci ñoom yaakaar parce que ñoom duñ fi nekk di wax ay salaatu ala fatiha ak ay mhm. ala ashrafil mustaqim ak ñoom du ñu jaxase affaire yi mhm. donc am nañu ràññee am nañu furxaan jàng nañu saar yi de dañ koy dagg